asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 18 mai 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay fi ñu koy dore tey mooy sunu lamb yëglikaay bi nag tey dafa ñëw indil ñu aw photo wu ci fi nga xam ne ni mooy arène nationale arène ba nag donte bañ ko defaree ak 32 milliards mu nekk bisu boo xam ne bu rafet rafet la boo xam ne daal ku ko gis sab xol dana bég waaye fi mu nekk nii day jafe ba ca am daal ci gëstub Abdoulaye Dembélé mooy fa nga xam ne nag mooy arène ba moom nanu koy jëriñoo fi mu nekk nii moo nekk problème boo xam ne daal bu nganda nganda nganda la bu jaaxal ñëpp bu te te te loolu nag tax na yëglikaay bi xam ñu ne daal donte ay concertation amoon na ci atum 2018 daal waaye fi mu nekk nii moom arène bi jariñoo ko xaw naa nekk jafe-jafe loolu yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey wax nu ko jàppal bu dee côté location bi la ñi nga xam ne nii wala boog arène ba ñu koy luyee lu toll ci téeméeri junni maanaam cinq cent mille francs bu dee wàllum sécurité la nga koy luyewaate lu mat cinq cent mille muy un million ci promoteur yi mu mel ni nag ba fii ñu koy waxee ni benn direction boo xam ne daf nañ ko fa muy traité ak promoteur yi lu jëm ci wàllum arène bi nuñ koy joteeg yooyu mel ni ki nag loolu fi mu nekk ni doon na ay jafe-jafe arène ba daal ay xam ne ñii di defar ko ba nga xam ne day yàqu yaxet waaye loo ci mën a dégg daal arène ba moom na mu war a mel wala nañ ko war a def yëpp def nañ ko ca moo xam ci wàllum sécurité ci lu jëm ci wàllum ay caméra de surveillance ak lu jëm ci wàllum lakk bu ameek yeneen ak yeneen yoo xam ne daal am na ca waaye daal nañ koy jariñoo moom moom fi mu nekk nii mooy problème ba promoteur yi moom loo ci mën di dégg daal am nañ ca ay jafe-jafe yëglikaay bi di sunu làmb tey ci gëstu dembele moo xëy toppal ñu mel lu mel ni ki noonu ci arène nationale bi keneen koo xam ne moom mu ngi ci sunu làmb yëglikaay bi xëy ñëw ci moom muy Bombardier Bombardier nag moom yëglikaay ba xëy tey di samp ab laaj ne kan moo koy sauver ban promoteur daal moo koy sauver ndax nag mennam at moo ko dese ngir mu dem retraite keneen koo xam ne nii moom waajagul a dem retraite di xale nekk ci làmb ji di Boy Niang yëglikaay bi nag moom dafa xëy ñëw ci moom nee na daal li am ba des daal fi mu nekk nii moom mission principale daal mooy daane benn VIP parce que nag comme moom joxoon nañ ko sens ci diggante mag lag de te mu mel ni foofa mujjul jàll réussirul combat booba daal moo tax yëglikaay bi nag sampab laaj tey ci moom maanaam daal fi mu war a jaar ngir réussir ko VIP bi mu war a njëkk dajal ngir wan ko boppam sunu làmb xëy tey ñëw wax ñu lu mel noonu ci Boy Niang keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom muy doomi Pikine di Cobra numéro 2 Cobra nag moom yëglikaay bi xëy tey dalal ko la muy wax nag wala ña mu bëgg a bëreel wala ña mu sampal ndënd du kenn ku dul pakala ba dëkk ci Mbour Gris bu Fass ak Forza bu Fass wala Moussa Ndoye bu Yaraax ne na ñi moom ku ci ñëw mu defanteeg yow ba mu saf-sap keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom muy mbay Yékini Mbaye mbay na de presse la doon def bërki déem waaye moom daal CNG ba daal la xëy di li mu leen di xamal nag dina leen daal licence yi nga xam ne daggoon nañ ko bu fekkente ne saison bi dafay jaaree tëj te bëreetuñu moom li am ba des wala boog ñoom promoteurs yi tëggatuñu ne na kon licence yooyu kay nañ leen bàyyi mu continuer saison ba la nga xam ne ci ñu jëm mbay Yékini bëri na lu bare bare loo xam ne wax na ko mu nga ca Leewtoo TV Lutte TV wala ci sunu làmb wala wasaare fu ne mbay mu nga fu xëy tey di wax beneen xale ngi nii moom boo xam ne ni Alioune Mbaye Nder lañ koy wax mel ni ki nag moom saison bi fi mu taxawee jaxase na ay affaire am bu baax a baax a baax yëg li kaay ne ay planam daal boo bëggee dégg-dégg moom mujj a jaxasoo def ndax nag la ko waral saison 2019 jàpp 2020 bi fa mu taxawee moo baaxul ci ki nga xam ne moo di Alioune Mbaye Nder buñ fa jógee nag dan naan yoxos dem fa nga xam ne nii moo di ca journal record record nag moom tey li nga xam ne nii moom moo di roi des arènes yi daal ñu xëy toppal la ko commencé ci Manga 2 ba ci Modou Lo loolu la Abou Ndour xëy tey gëstu andil ñu ko bu dee Manga 2 moom lam ko jàppe mooy seul roi boo xam ne nii moom la CNG bi reconnaître officiellement wala boog moom la ñuy reconnaître tubaabu joor moom mooy nir ko ni la ko yëglikaay bi tudde kii di Tyson moom moom daa ni daal moom moom ko tamit ba mu cay toll fantastique defan na ko lool Bombardier moom double bu historique la ca def Yékini personnifié loolu la def li nga xam xam ne moo di roi ba Balla Gaye 2 moom mooy ki ci do gën a doon xale gagné roi des arènes Eumeu seen moom da caa yàggul waaye nag keneen koo xam ne moom ay mbiram lu ca spécial la ca te mu yore ko tey mooy ki nga xam ne moo di Modou Lo Modou Lo nag moom yëglikaay bi la mu ko tudde mooy sacre Dakar maanaam daar département de Dakar moom mooy mbër moo xam ne moo fi njëkk a gagné li nga xam ne moo di roi des arènes loolu yëglikaay bi xëy tey ñëw wax nu ko ka mu dëkkal ca parcelle nag di óbbali moom wax na na muy dunde koor ga moom daal jàpp na ne la ko commencé quatorze ba dix-huit heures daal moom ëbbali dana ca lay entraîné bu ca jógee nag jàppal la nga xam ne daal ñëw na ci ci wàllum xaddam moom la ko ca dàqal moom nee na li nga xam ne moo di laaxu sow ak banaana nee na yooyu daal lay faral di xadde waaye itam reer ba moom gis na lu mel ni kii li nga xam ne ni moo di suppu kànja nee loolu daal moom bëgg na ko bu baax a baax a baax nee nag bu ca jógee guddi gi moom mu nga ca langa xam ne ni moo di youtube baak télé di seetaan lu jëm ci wàllum lambak ak yu mel ni kii noonu ba tey bu ñu desee ci record nag dafa xëy tey di ñu tàggee koo xam ne daal champion bu mag la woon ci wàllum làmb africain bi muy ka nga xam ne nii moo di Arouna Abdou di doomu Niger moom nag nee nañ àjjuma ji ñu génn daal la génn àddina moom nag gañan li nga xam ne moo di saafara door ba ñaari yoon waaye dañ fay jógee dem fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV dañ fay fekk nag moom moo di ki nga xam ne nii moo di Kaaw Cissé Kaaw nag moom moo ngay wax ca ña nga xam ne dañ ko doon tàggee naan génn àddina mënatu dox mel ni ki nag Kaaw génn na wax na nee na leen maa ngi nii nekk ci sama jàmm dama amoon blessure traité naa ko ba mu wér bi te làmb ji dama ciy dikkaat ak force mel ni mel nekki nag vidéo boobu moom mu nga Leewtoo TV keneen ko xam ne moom bu ñu demee Leewtoo TV dañ ko fay fekk mu di Faby Filir moom nag li nga xam ne daal feebar moo ko tëral ay weer muy hémodialyse mu mel ni ki nag moom itam mu nga ci Leewtoo TV di woote ndimbal mu mel ni ki daal kër demoon nañu seeti ko waaye nag wax na ne daal kii di Tyson moom ak ñeneen ñu mel ni ki ñoom daal ñu ngay dugal seen loxo ca mbir bu baax a baax a baax mu mel ni ki nag moom la muy fay ca jalis ja metti na loolu te seer ndax nag jàppal semaine bu ne dana ca dem ne na ñaari yoon te bu demee dem bu ne soixante-dix mille lay fay boo ko boolee muy cent quarante mille francs ci semaine bu ci nekk mel ni ki kon loolu leer na kon daal ku ko man te di dégg moom booye boo nga jéem a jóg jàppale Fabio Fili jàppale ko te yàlla tax ndax nag hémodialyse seer na lool lool waaye di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla wéral mu bépp doomu adama boo xam ne wéradi nga ndax nag kuy tund de tooy moom faw ngay wéradi waaye ku ci nekkit am nga droit faju ndax yàlla nu ko digal la ca nag nu ñaan ko sunu borom bi moom mi man tey def te lu ko soob mu def ko asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV fu ngeen mën a nekk rek ñu leen di nuyu di leen ziar tey nag lundi le 18 mai 2020 waaye yëglikaay yi sunu lamb record Leewtoo TV Lutte TV fu nekk xibaaru lamb xëy nañ fa tey bu dee sunu lamb la moom la mu xëy ñëw mooy arène nationale la ñu xëy tey indil. toppal ñu ko ci maanaam concertation yi nga xam ne amoon na atum 2018 ak après la ca topp ak arène bi ak jafe bi mu jafe ci promoteurs yi ci maanaam nuñ koy jote ak arène beeg wàllum sécurité mag ba tey amagul ko fa nekk xam ne dina dox diggante promoteurs yi ak arène bi pour ci location beeg yooyu mu mel ni 500000 la promoteur bi fay ci arène bi fay 500000 wàllum sécurité muy loo xam ne daal lu yéeme yéeme la mu mel ni ki daal état bi kon daa mel ni fi mu nekk nii moom am nañu bi donte defar nañ ko ñu leen ci mais li ci topp nag mooy suivi bi ci war a topp mooy directeur war na ko am war na am koo xam ne daal dina ko topp ba nga xam ne tey ku fa ñëw di promoteur la nga bëgg di ko am te muy dëppoog li nga xam ne nii dina nekk njëriñul réew la te euh, a jëfandikoo ne a jariñ kon daal taxawaay bañ ci war a taxaw nañ ko ci teel sport monsieur Ba ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyandool Bombardier ku koy sauver maanaam benn ata ko dese kan moo koy sauvé ban promoteur ngir mu bëree benn combat wala boog door a génn làmb ji loolu moom ah promoteur yaa ngi dégg xëy na dinañ dina leen intéressé ñu tëggal ko combat bu a bëreel na moom mooy euh, nekk na koo xam ne nii daal maanaam ah VIP pour mu daan ko fi mu nekk ni moom la ñuy xaar ci moom parce que bi mu ci jëkkoon a am muy diggante ma Lac de Guiers dafa ñàkk combat wax na lu mel ni ki noonu Cobra numéro 2 gis nañ mooy tam mu ngay cité adversaire moom mooy Gris 2 Pakala Forza bu Fass ak tamit Moussa Ndoye moom jàpp na ni ñi ñëpp ay adversaire am lañu Mbaye Yékini tamit wax na Mbaye wax na ci moom que daal seen licence yi nga xam ne nii moom lañ dagg nii te xëy na utiliser wuñ ko parce ndax ku ci ne waroon nga tëgg far corona bi ñëw muy mbër mi muy manager bi muy promoteur bi jàpp na ne war nañu déwén bu saison bi ubbeeg jàmm ñu bàyyi leen licence yooyu continuer loolu nag waa CNG la ci interpellé mais nañu yónni yàgg rek comme ni ma koy faral di waxee bu ñu demee record tamit indil nañu roi des arènes yi ak yu ëbbali moom wax na ay ndogam ak yam yëgu ca gënal yaa ngi dégg ak na muy entraîné waaye daal xam na ne ba moom laaxu sow ak banaana moom dana ko faral di lekk suppu kànja neex na ko trop ëbbali mu wax loolu Ibou Ndiaye ëbbali ah waa ki nga xam ne waaw ak benn mbëru Niger boobu nga xam tamit dafa génn àddina ñu koy jàlle waat Niger yëpp waa di ko ñaanal yàlla xam nga parce moom tamit champion bu mag la woon ci wàllum lit bi nga xam ne moom la doon Fabio Felire tamit mu nga ca fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV moo Kaw Cissé yëpp ñoom ñaara nga fa ku ci nekk bu dee Fabio dafa wéra moom amee li nga xam ne mooy hémodialyse mel ni ki nag waa làmb ji ku ci ne yaa ngi sol sa daal fas kuy ne jàppale ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla wéral ak bépp doomu aadama mu wéra tamit waxoon nañ fi wér-gu-yaramam ak yu mel ni kii noonu waaye moom lu ci bëree bëri leeralal na ko boppam parce que nag am na loo xam ne nii moom <laughs> waaw maa fekkee ne nañ bakkan lay laaj waxal na boppam daal ci Leewtoo TV mu loolu moo fi moo dëkk ca Malika moom tamit fekk mu nga ca Lutte TV te ñu agressé ko jam ko bal moom tamit daa mel ni ki moom tamit wax na mel ni ki daal kon képp ku wéradi nga am jafe-jafe ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko teggi moom mi nga xam ne lépp moo ko man di ñaan la bi Sénégal yëpp jam di balu ñëpp di wax ne que weeru koor gi nga xam ne moom lañ nekk nii ne ci fukki fan yu mujj yi lépp luñ ci war yàlla na ko yàlla nangu barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te fi dàqal ñu corona bi ba faw faw ñi ci jot a tëdd yàlla na leen yàlla yëkkati ñi ci faatu yàlla yërëm leen xare leen ajante yàlla yemale ko fi di balu sénégalais yëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk à l'étranger fu ci waay mën a nekk rek ñu ngi lay béggee mais liiru jaan maa ngi lay béggee maa ngi lay béggee mention